asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport dañu koy door rek jongante yi fi jot a xew ci bëccëgu tey bii bokk na ci Uruguay bi doon football ak Ghana waaye Portugal ak ñii di Corée du Sud Ghana nag dafa dal di daanu te moom nag ñu ngi doon dundee yaakaar ci moom ne amaana dina doon ñetteelu équipe bu Afrique boo xam ne dina teew ci li nga xamante ne ba huitième de finale yi waaye nag match boo xamante ne match nul sax bu ko amoon 2010 moo xewaat rek ndax atum bu ngeen xoolee Ghana Uruguay moo ko éliminé woon te ñoom amoon nañu penalty boo xam ne waroon nañu mën a jàllale Gian Asamoah raté ko tey jii ñi nga xamante ñoo di Ghana amaat penalty ki nga xamante ne mooy André Ayew dal di koy ratewaat loolu nag moo tax ñoom ñu dal ñàkk jongante googu ndax Uruguay dañoo mujjee profité ci loolu dal dugal ñaari bal jongante gu jeexee ñaari bal ci dara loolu moo tax kon Ghana ñoom toog nañu Uruguay Corée du Sud dañu mujjé dab Portugal gannaaw bi Portugal njëkkee dugal Corée du Corée du Sud ñëw daal di égaliser ba nopi dugalaat muy 2 buts à 1 lool nak moy yaqal ñi nga xamant ñoo di wa Uruguay kon ñom door nañu waaye mëna ñu qualifier Corée du Sud mo jall ci seen kanam voilà kon non la démé Portugal ak ñi nga xam ñoo di Corée du Sud ñoo jall Ghana ak Uruguay ñom ñaar ñëpp dañuy and ñibi gannaaw loolu dañuy ñëw ci li nga xamne boy match bi Sénégal wara am digënté ak Angleterre ki nga xamanteni nak moy mooy Alexandre Arnold nekk défenseuru Angleterre bi le mom yëkëti nak cadeau moom nak li mu xamle mooy ne équipe nationale bu Sénégal bi kat mom mu koy bàyyi baax la donte ne nag xëy na ñenn ñi yéen ngi dégg fan yi xam nga ñuy wax naan am na ñu ko ñuy néewal doole Sénégal wala ñu koy jéem a waaye Alexandre Arnold moom nee na moom nag dafa jël match bi euh, waaye loolu yëpp du ci dara ndax xam nañu ne Sénégal équipe bu baax la yor te minutes jongante te lu ne mën na xew ci biir jongante googu voilà ci biir 90 yooyu le mu ne lu ne mën na xew mën naa maanaam ñoom dañu am pour joxe 100 pour cent bu ñu bëggee gagné maanaam seen lépp la ñuy joxe mu ne 90 pour cent ko joxee lim leen di jural mooy ñu ñëwi ci seen kër yi maanaam ñu toog dañuy toog maanaam dañu am pour joxe ngir war a mën a génn ci match boobu maanaam ak ndam waaye bu fekkente ne nekk nañ fi di jéem a am lenn lu ñuy teggi tànk wala li na ne ñu yor gannaaw loolu moom mi nga xam ne bokkul ci coupe du monde bi moom nag li mu xam le mooy absence su nekk na li nga xam ne daal taxaw na coupe du monde bi xawoon soof tuuti ci moom voilà maanaam ñi kii sa absence su Sadio Mané daal neexul ko woon trop ndax mu ne Sadio Mané nag bu mu wala bokk na ci dégg maam ci nga xam ne ñoo fi nekk ci aduna bi voilà ndax moom nee na euh, Sadio Mané mën na la gañaloo match maanaam moom képp mën na tax nga gañe ab match moom loolu gis na ko gisati ko lu bëree bari wala sax bokk na moom équipe mu daal di gañe match boo xamante ni moom ci la bokk kon moom jëriñu sax jëriñu na sax ci li nga xamanteni moy mooy Sadio Mané mu nek xarañteef goo xamante ne am ko motax bima bi mu déggee day wuutee li di coupe monde mu mon dal affaire bi dafa mu joon sof ci mom voilà bima mu déggee Sadio Mané day wuutee coupe du monde bi bir mi sofon na ci mom neexul ko won dara ndax xamné Sadio Mané joueur bu bax la te mom relation yu rafet la am digënté ak mom motax dal mom jàpp na ne Sadio Mané absence am ci li nga xamanteni moy coupe du monde bi taxon na dal ba mu yëfi xawon nako sof way waaye dal joueur bu xarañ la bo xamné man na la gagné lo ay match donte ne bokul ci équipe bi nga xamné Sénégal nak war nañu ko football ak ñom ba légui gëm na ne Sénégal en tant que équipe équipe lañu yor bo xamné bu bax la te it lu ne mën nañu ko def ndax kat xañ na seen ak dëgër wala seen ak taxawaay moo leen agsi fii moo leen indi fii ñu agsi tey gannaaw loolu dina ñëw ci match bi nga xamante ni mooy matchu Allemagne bi xewoon ni ki xam ngeen ko ancien milieu de terrain bu Allemagne la nekkoon Bayern Munich ci jaar Manchester voilà moom nag dafa daal di addu ci li nga xam ne mooy équipe nationale bu Allemagne moom li mu daal di xam ne mooy Allemagne dañu am problème mu défense défense de classe mondiale nee na kenn képp lañ ci am te mooy Rudiger maanaam ñeneen ñi ci des nag moom jàpp nañu koo daal xayma ci ne daal am nañu dégg ci li nga xam ne mooy Bundesliga bi waaye world class euh, defender moom kenn rek la te mooy Antonio Rudiger kon ñoom Allemagne dañoo am jafe-jafe ci wàllum défense bi loolu tam daal dina koy gaaral ki nga xamante ni nag mooy Walid Regragui moo nekk entraîneur bu Maroc itam am na ay question yoo xam ne laaj nañ ko ko lu jëm ci wàllum représentant wu dégg nga ci coupe monde bi ndax dafa ñëw représenté li nga xam ne mooy dëkku arab yi wala dafa ñëw pour représenter Afrique ya ca aju moom li mu tontu mooy moom li mu daal di mooy ñoom dañoo ñëw teew li nga xamante ni muy Afrique ndax kat dafa gis ne maanaam li nga xam ne mooy footballu Afrique dafa am fu mu war a dem voilà te ñoom dañoo ñëw teew ci li nga xamante

defaguñu dara de maanaam ci huitième de finale képp la ñu mën nañu def lu raw li nga xam ne def nañu ko pourquoi pas sax ñu gagné li nga xam ne mooy coupe mën na nekk voilà ngir ni ko ñëpp di rêvé ngir gagné coupe monde bi ñun tam loolu la bëgg teyit lu mën a nekk la voilà kon loolu daal dina koy teewal xam la ne ne daal ñoom dañu fee teew ngir Afrique teyit mën nañu gagné li nga xam ne mooy coupe monde bi daal di yóbbu Afrique mais ñëwuñu fi ngir teewal Suarez day delluwaat Espagne ci club bi di Almeria ndax ñoom ak Olympique de Marseille déggoo nañu voilà dañu koy appelé waaye appelé gu nag ànd naag option d'achat kon ñoom am nañu li nga xamante mooy option d'achat mën nañu wax sax obligatoire la bu fekkee dañuy des ci lii di La Liga bi maanaam Almeria bu ñu joué ba saison bi jeex bu fekkente ne ñoom wàccuñu ndax dañuy des ci li nga xamante ne mooy Liga espagnole kon dañuy signé ki nga xamante ne mooy day dal di delluwaat foofu la ci Espagne comme ni ko kayiti xibaar dal di bërëlee